ay kon moo ko ñëw def ko ci daara waajuram bu góor ah, lan mooy sa relation moom ba tax nga teew fi. avant tout d'abord maa leen di nuy di nuyu ñëpp ñuy seetaan donc euh, Akon c'est un ami c'est un frère donc boo xam ne euh, dañ nekk ci projet man ak moom euh, yàlla dogal aussi waajuram bu góor nekk sama kilifa papa Mor Thiam nekk sama xarit mu war a inauguré bi mu def fii ci Lac Rose ma dëkk fii aussi juddoo fi yaroo fii en tant que artiste mu invité ma pour ma ñëw teewee ko loolu moo waral teewaay euh, bi. nga ñëwee ba gis ci daara gu mag gi nga xam ne nag waajuram bu góor boobu moo ko daal di moom ak jumaa bu euh, euh, mucc ayib bi nga xam ne tabax na ko la waaw mais am mbégte am am contentement bu baax surtout bi ma gisee ndaw yi nga xam ne fii ñu ngi leen fiy tàggat ci diine ci alxuraan vraiment mbégte la boo xam ne am nañ ko ndax suñu diinee la ñu am. vraiment bu ñu gisee euh, ay ay suñu ay kilifa vraiment nekk ay référence di ci def seen doole di ci def seen ay yitte ngir tàggat ndaw ñi ci diine ci alxuraan ñun loolu mbégtale ci ñun et euh, vraiment motivation bu doy waar la ñu xam ne lii lañ am fi la ñuy mujj mooy suñu doole moom mooy suñu lépp donc ñoom référence lañ tracé nañu yoon pour wan ñu fan lañ war a jaar quoi. d'accord mm. ci biir loolu nag duñ taxaw ak yow en tant que ndaanaan di euh, koo xam ne nag ràññee nañ ko ci musique nga nekkoon ci label bu ñaar rock ci musique yàlla def jamono ji nekkatoo fa mais dañoo gis ne Cherifou dafa mel ni bi mu jugee euh, fi nga xam ne moo di rock ci musique dafa gën a percé lu waral loolu. waaw mais liggéey rek am ah, xam nga bon rock ci moom famille lañ quoi xam nga te ñun ñëpp dañoo yaru ci liggéey bu ñu nekk ensemble dañuy liggéey. bu ñu sorantee dañuy liggéey bu ñuy déggante bu ñu ñàkk déggante et tout ci loolu lañ formé wu quoi ñun ñoo bokk benn ambition ci l'AFP donc moo tax képp kuy membre Rock Team nga nekk fa nga jógee fa nga moo waral aussi Chérif bi après projet Chérif Jobs Brain mu tracé wéyam nekk ci la continuer doxee liggéey loolu moo waral tey ñu gis évolution quoi. mais bu fekkee ne noonu la demee kon à nga quitter Rock Team Musique comme même boo fa quitter sa à distance ngeen di liggéey. waaw bon xam nga bu ñu waxee quitter rek xiite moom dafa doy waar gars yi ñu ñi gisee su ma leen namee dama leen di seeti mais comme carrière la te liggéey moom moo ñu boloon ci ay projet projet yooyu jël nañ suñu temps 4 ans la laajoon jël nañ suñu temps def ans yi ba mu mat après ku nekk nekk sa carrière solo donc euh, projet bi moo jeex mais xaritoo bi ak cofeel gi colère gi jeexul. d'accord euh, ci biir loolu ñu gis ne bu mujj bi sax laay ñëw muy Tamarin Euh, di yëngalaat réew mi nit ne ki nga xam ne moo di Chérif dafa tàmm di jouer avec les mots parce que gis nañ fi pop pop gaa i sax yàbbi nga ñëwaat tamarin moo yi ngay fooye pour la la mooy ñuy fooye mooy seen laa ko déggee pourtant tamarin mooy Dakar xam nga donc dama dama judd fekk ko fi ah dégg yéen ma ko jàngal ma xam ko mu nekk ay mbir yoo xam ne war nañ ko valoriser en tant que artiste am nañ liberté wu créer en tant que artiste am nañ liberté wu jël ay terme ay mo valoriser ko jëmmal ko jox ñu jaam jox ko jaam ñi mu am fu mu leen orienté et tout donc loolu moo tax ay pop pop ay varaj varaj ay tabara lépp ay mbóot la rek mais jël ñu ko pour foo thème titre bu ci nekk am na liaison ak sound bi boo ubbee ba ci biir di xam ne lii noonu lañ ko tuddee mais yooyu la turam. ñëpp presque même thème bi la parce que euh, tamarin gars yi nee nañ ça parle tamarin pop pop c'est du pareil au même donc euh, euh, tout le temps Chérifou ay sonam day daal di ñëw rek ci wàllu mbëggeel. waaw loolu mooy ñu dégluwul ñi nga xam ne dañuy dégg mais duñu dégg mm. donc trois singles yi ma def yëpp benn moo ci love muy varaj varaj mm. donc tamarin ego trip la. ego trip la bu amaal leçon bu deewaar ci biir mi ngi wax ak ki nga xam ne dafa door ci benn mbir néew doole lool weet lool mais teewul am na lu ko gëm yaakaar ko wóolu talent am di ko ñaanal ñooñu lay waxal moo tax mu naan seen ñaanu démb door na tey di kemaan seen biir xol ngeen ko dencoon pour résumer rek euh, pop-up euh, Tamarin ego trip la day wane pouvoir ak richesse bi nga xam ne artiste bi am na ko moo tax mu naan su ma neexee mu jal jali game bi musique bi lay waxal su ma neexee mu jël jëli baa mu jël jëli su ma neexee mu ngun guni curaay la gun guni maanaam su ko neexee style bu ko neex lay def su ko neex à tout moment yëngal game bi jaxase ko ba mu jaxasoo comme jamono bi ni nga ko waxee donc sa part de de de Chérif en tant que artiste ak ay risasam mais du du love quoi varaj varaj rek moo love donc pop up aussi benn track la boo xam ne ci euh, ci ci ci ci hypocrisie lay wax ci ci ci ci nafeq ci noono ci soxor ci iñaan quoi voilà Euh, ci biir loolu actuellement mën nañu xam lan mooy projet ki nga xam ne moo di Chérif ndax jóge nañ ci at bu nga xam ne moo di 2023 di dugg ci at mu bees donc ñuy dugg ci at mu bees lan mooy projet ki nga xam ne moo di Chérif. waaw projet euh, actuellement projet Chérif mooy euh, nekk ci continuité wu promo Tamarin bi en même temps aussi ñi ngi studio di préparer suñu album bëgg nañ leen jox benn album bu deep album bu deewaar album bu am level incha allah ci 2024. et pourquoi pas indi une chanson avec Akon waa waaw waaw bul bul bul bul suli suñu lu ñu denc waay <laughs> ci loolu lañ nekk loolu lañu nekk nii donc euh, mun na am sax tey ci guddi studio la ñuy fanaan ci loolu la ñu kon daane sànq yee incha allah donc voilà quoi si bien mun nañ fanaan tey studio ne ci ne ci ne ci track bi. mais Akon euh, moom moo waxoon euh, Wally Seck link du noonu. moom moo waxoon. Wally Ballago Seck link nekkul noonu quand même te fii noonu. ça veut link du noonu. link du noonu. ça veut dire ça dépend ci ki ko wax ak ni mu ko ko waxee ak lim ci jublu. j'ai rien ci link du noonu. de toute façon euh, c'est un frère. fil na ma fil naa ko pare nañ pour def lu doy waar. mais loolu moom sax bi ko ay kon di wax fekk na Wally mu doon ci dëgg carrière am. Wally boobu mu doon wax ak Wally tey bi bokkatul. ak gis nañu ne ñoom it ñu ngi préparé projet yu mucc ayib ak ñoom. ñoom ñaar ah. sant yàlla kon. <laughs> <laughs> pardon. nee na est que jot relation waaw loolu moo waral featuring bi nii loolu moo waral featuring bi ñu war a def tey incha allah. mais la ah, euh, lañ nekk si tout va bien incha allah. mais la moo tax moom bàyyi di gën artiste moom mu rek a ci mën a tontu nag <laughs> loolu moom Akon rek moo ci mën a tontu. Ah. waaw ay feeling la yàlla moom mooy moom mooy dajale Akon ku ko xool xam ne bon artiste la te artiste moom bon boo ko fekk day day open quoi. comme open mind lay am bu la filee fil na la donc man tey je e tant que ku nekk mën na ma invité euh, featuring bu ma ko feelul du ma ko def feeling la rek quoi comme xam nga mais grand la boo xam ne je pense que musique moo ko intéressé yàlla boole na ñu xamante demalanteeg famille bi dikkalante. looy xaar bi featuring bi loo siy xaar yaa ngi école. ci lañ nekk déggu ma la mun na am tey ñu fanaan studio. waaw loolu lañ nekk nii bu temps bi mayee rek ak programme bi ñu nekk nii mën nañ fanaan studio dem rey ko incha allah ci loolu lañ nekk. tardé musique carrière la life amul tardé life domaine ba nekk. expérience moo am temps boo duré ci benn métier la fay ramasse moom solo moom solo. collaboration Josso Brand nekkul moom moom moo la tàddaloon ah. pardon. Euh, sa kii sa kii de collaboration Josso Brand est-ce que nekk moom moo la tàddaloon. non foofu tàggat lañ fa jëlee man ak job yëpp. 4 ans xam nga xamante boo gis rek njëriñ la quoi. tey bu ma yàlla boolee ak Abdou Wele. ci lu mu mënti nekk temps bu ñu toog même bu dee cinq minutes ñoom lu ñu échanger jël na ci man jël naa ci moom. 4 ans de projet du caaxaan du 2 jours Serif sol na job sa brin lu deewaar. Chérif tam jël na ci job sa bu neen lu doy waar amul ci life expérience moo am expérience boobu bu la yàlla dimbalee ba la ngay nekk mu tàkk moo koy téye boo bañee def def euh, chuté ci lu gën a gaaw boo dugg ci mbir balaa nga yàkkamti ñu xam la yàkkamti siiw yàkkamti wane li ngay def sàkkul xam-xam d' abord sàkkul expérience d' abord moo koy téye métier bi ngay def nii boo ci amul xam-xam ay boy ndew ñooy jëw faxas la jël relève bi téye ko euh, mais ci biir loolu dañoo gis euh, lan relation bi li nga xam ne moo di les artistes sénégalais euh, su ma waxee loolu mooy que ni Chérifou c' est très rare nga ñëw ci concert artiste fekk ko fa lu waral li ñu mel waaw bon xam nga man moom moo mën a gaayeb franchement ay ay nawle lañ comme xam nga donc relation bu nice la c'est ñoom fu ñu dajante dañuy showante love mais man ma préféré man ma préféré gën a liggéey que def ay sorties yu bari donc Chérif moom moo préféré dundee noonu comme ma am euh, envie dem sa soirée bon su ma ko file mun naa sañse ñëw sax jël table toog cons ak samay ga ñëw support la loolu dara quoi loolu moom bon question de feeling la rek quoi. Ah, di lay show love xale yi gis naa ñu bëggee Chérifu gis naa bantu tamarin bi niñ ciy fowee yéen yéen ko moom <laughs> di leen bëggee di bëggee Sénégal yëpp gis naa cofeel bi ñu ma jox maa leen koy delloo. merci beaucoup. jaajëf Seneweb Sénégo Dakar TV Dakar Buzz site internet yi Galsen yëpp maa ngi leen <laughs>